مك جلدي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نوغي مغل برم بتعالى وتبارك ديكو غرم ديكو باك ديكو نيان مو جيغل نو سوني نجومتي جلد نيان كوي نيان مبولم يوك يرنتي بصلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم fi firdawsihi al a'la noo ngi ñaan borom bi lu jamono yàqu-yàqu yàlla buñ ci bokk lu bàkkaar bari bari yàlla nañ ci mucc nuy jullitey selmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi delsiwaat ci madrasatu ramadan muy jotaay yi ñuy amal ci pause bi ñuy amal ci taxawaay yi jaamu yàlla yi yàlla na ko yàlla nangul noo ngi ñëwaat ci nidaatu rahman li ahlil iman muy woote bi nga xam ni borom bi dana ko woo borom ngëm-ngëm yi gëm kon yàlla ñu may yàlla may ngëm gu sax yaa ayyuha alladina amanu yooyu borom bi wax yàlla nañ ci bokk te mu dëggu tey ñoo ngi ñëw ci ñetteelu bind ci yaa ayyuha alladina amanu yi waye tay ñu ngi ñëw ci hasul muminina ala al infaq qabla fawaati al awan mu yàlla wo bi mu wo julit ñi di leen ñaax ci ñuy saraxe di génn sen alal bala de ñëw ndax bu de xasse ba ñëw rek moy jeexna mënato def dara luy tax nga am tuyaaba xanaa loo fi bàyyi woon su dul woon ak bàyyi nga fi dara luy tax sa tuyaaba di yokku lu mel ni sadaqatun jaariya kon mënatoo amaat beneen tuyaaba kon ku dee tuyaaba yi muy am mu koy fekk si ginnaaw bu deewee ci sadaqa jaariya rek la mën a nekk nekkoon jàngalekat di jàngal ay nit lu leen di jëriñ ci seen diine ak seen àdduna ak àllaaxira kooku bu deewee mbooleem ku mu jàngaloon ka mu jàngaloon ba fa ñu mujj ñooñu saa bu ñu jàngalee moom day am ci tuyaaba ji kon loolu épargne boo xamante ni compte courant lay nekk ndeysaan compte courant mooy compte boo xamante ni day dox tout le temps kon sadaqatu jaariya moom moo mën loolu ñaareel bi bàyyi doom boo xam ni yar nañ ko ci diine muy jaamu yàlla di la ñaanal kooku tamit say tuyaaba day yokku moo tax jullit bi bi amee doom dace cee góor góorlu ba am doomu diine bañ a am doomu jamono doomu jamono mooy nu jamono bi mel mu mel ko doomu diine mooy ki xam ni dafa war a jaamu yàlla ndax way juróom génn na àdduna mu taxaw jéem koo yar defar ko ndax ñi baax ñépp lañ doon ñaan mooy rabbi aslih li fi zurriyati yàlla yàlla ñu defal njaboot gu baax ñetteel bi ci li nga xamante ni compte courant lay doon di la mën a fekk ci sa bàmmeel mooy loo dépensé woon muy jëriñ nit ñi lu mel ni tabax école wala tabax dispensaire wala maye terrain ñu def ci école wala dispensaire wala nga tabax daara wala hôpital wala nga jëmbat garab garab bi ñu ciy jëriñu moo xam nit ñi wala animaux yi loolu tamit dalay fekk fi ci sa bàmmeel kon yooyu ay mbir la yoo xamante ni nit ki war na góor góorlu fu mu toll su dul yooyu rek soo génnee àdduna te bàyyi woof yu mel nii mooy sa sa yëf yépp yàqu na walla boog bu yàquwul it dootoo am lu yokk balaa bis pénc am na koo xam ne bu duggee bàmmeel balaa bis pénc jamono bi muy gaañu bu ñu nattoon li mu am boo moytuwul day manqué lu bari waaye diggante bi bàyyi na fi loo xam ne mi ngi koy yokkal ñu ko koy noteel kon loolu bokk na ci mbir yi am solo nga ni loolu lan moo tax muy am ñu ne la waaw dafa mel ni rek kuy liggéey ci société bu ñu reconnaître société bi di la cotiser soo demee ba retraité est-ce que doo jot chaque mois xaalis te liggéey yoo lan moo tax mooy la nga liggéeyoon ci société bi mooy jaar jaariya la danga nga bàyyi woon reconnaissance boo xamante ni mooy tax su weer deewee ñu fay la wala ñetti weer yu nekk ñu fay la lu mel noonu moo tax. yonent bi misaalal ñu mbir yooyu kon tey ñoo ngi ñëw ci ñetteelu woote bi yàlla yi woote selon ñun li ñu tànn ci ñetteelu bind bi ba tey ci suuratu baqara aaya 204 baada audu billahi min alsheytaani rrajim يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون برم تعالى وتبارك من ميوه di la woo yow mi may déglu yow mi nekk jullit maadaama jullit nga bokk ci alladina amanu borom bi nee na mi ngi lay woo allahu akbar yàlla subhanahu wa taala su la woowee boole la ci ñi gëm loola mat naa sant sante yàlla te sax bi la yàlla woowee nga ni naam waaw borom bi ah maa ngi lay wuy de ndax ibnu masud neen na saa boo déggee yaa ayyuha alladina amanu boo doon daw taxawal boo doon dox taxawal ñu ne waaw lan moo tax may taxaw mu ne parce que ñaar rek moo ci mën a nekk njëriñ lu mu lay digal nga di ko jëfee te boo ko jëfee dem àjjana walla lu yées lu mu lay tere nga bàyyi ko te boo ko bàyyee dem àjjana kon borom bi boole na nañu ci ñi gëm ba pare wërsëgal ñu nenu yéen ñi gëm yàlla li ma leen wërsëgal moo xam bëri na wala bëriwul am ngeen wala ñàkk ngeen génne leen ci dara li ngeen am génne leen ci dara kenn ku nekk ci ñun am na dara munoo wax ni amoo dara non non ku nekk ci nit ñi am na loo mën a def ci yoonu yàlla am na loo mën a génne am na loo mën a saraxe allahumma nga nekk ku nay lool te yàlla nañ ci yàlla musal waaye waxtu bu nekk am na loo mën a génne moo tax borom bi ne anfiqu mimma razaqnaakum dépensé leen ci lenn ci li ñu leen xéewalal waxul ngeen dépensé li ngeen am lépp waaye lenn ci li ngeen am ubbil sa kalpe tànn fa dara génne ko jox ko yàlla xanaa yi loolu mënul nekk kon mun na nekk

من من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ني أمنا بس بي نيو كروك أمول جاي أمول جند كروك كدون جاي سم جاي في ليم كدون جند سم جند في ليم جاي جند مم أموتو لن موتا فاي مو أم مو يوم الدين بسوك فاي ني mutake walkafiruna هم الظالمون يفري ني ودي ñoo tooñ seen bopp kon jamono boo amee te joxe woo da ngaa bokk ci ñi weddi non seulement weddi nga xéewal bi la yàlla jox waaye weddi nga ni amna ñu yàlla néewal doole nga war leena a sécuré dimbale leen li tax nga war joxe da nga war a xool bu doon yow ndax doo soxla ku la jox kon bunt yi nga mën a génne def li ñuy tuddee solidarité jàppale sa moroom moo xam bu feebar moo xam bu jaaxle moo xam bu ne ci nattu moo xam bu ñàkk nga génne jox ko te yàlla tax bis a ngi ñëw borom bi ne na kenn ku nekk sa mbiri bopp dana la doy li kulli mri'in منهم يومئذ شأن يغنيه برمبي نينا بسبين تكن كنك أم غمبير ملدوي سك سبب برك ورنا لدي كنه تنيني أم غلدوي ينا ملو بس بوبو كن كنك لينج جف مولاي جارانتي كل نفس بما كسبت رهينة كن كنك la nga jëfee mooy nekk sa garanti moo lay moo lay garanti ku nekk ci nit ñi sa jëf moo lay garanti maanaam sa jëf moo la taxawal fa nga taxaw su baaxee nga jàll su bonee nga surux kon ku nekk sa jëf moo lay taxawal kon mbokk yi dafa war ñu am xolu di génne islam diine action la diiney solidarité la diiney jàppalante la ci xale mag ndaw jàppal ni loo am mën nga koo bokk ak sama morom bu doon benn palaatu ceeb la nga jënd ko 600 francs di ko lekk nit romb la bëgg ci nga woo ko dimbale nga ko ci yoonu yàlla dimbale nga ko ndax xiifoon na nga may ko soo doxoon romb xaj buy yalkat ngir mar naan nga fexe ba utal ko ndox mu naan so ko ken xamul tiyaba bi mu toll allahu akbar ken xamut nu mu toll boo romboon xaj bu son nga mu leer la ni xaj bi dafa xiif wala dafa mar wallahi bo yëkkatee jox ko wala nga dindil ko tiyaba bu reey la man damay am lenn lu may yéem nga gis ñu wone ay ima vidéo yoo xam ne da ngay gis tubaab yi wala ñenn ñi di dugg ci àll yi du xool ay rab yu sonn ñu leen di dimbale damay toog ba ci àgg ma ne ñii yaa layte ñu amul ngëm yàlla xoolal action yi ñuy def ni mu amee solo aksiyon yi ñuy def ni mu amee solo sànq rek maa ngi seetaan benn xaj bu am ay doom ci côté Inde la benn doom bi xawma ma accident la xawma lu ko dal doom jaa ngi tëdd di ii i yaa ji tiim ko di yuuxu di mbaw ay nit ñëw di nax yaa ji di nax yaa ji ba jël xaj bi dem di ko faj fexe ba jël yaa ji boole ko yeneen xaj yi ndaw yi mu yooyu yële àndal mu leen di nàmpal ñu defar bële ba mu wér ñu indilaat ko yaa ji moo toog ba jaag ma ne xool leen action yu am solo yi ñuy def mais malheureusement tey tubaab yi li ñu mën ci defal xaj nag munuñ ko ci defal jullit imagineel tey loolu ñuy defal xaj ba nga li ñoo baax ñu ngi bombardé ay jullit léegi boo jëlee ñaar yi tollale li ndax ak humanité mi ngi si soo gisee action bi ñu def ci xaj bi walla animal bi danga naan ñii ñu baax lañ waaye boo gestoo tuuti xool nañuy def chargé ay avion ba mu fees ak bomb di ko sotti ci ay nit yaakaar naa ne dimbale xaj dimbale animaux lu bax la waye li ëpp solo moy dimbale nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena wa fi kulli zi kabidin rukbin sadaqa borom gaddam bu ne bu toy rek mën nañ ko sarax bo joxe xaj bi mous bi mu lek kon nit bi kenn waxu ko beneen bi ñom ñay def lolu mu nek action yu bax so do nit soxla duñ la ko defal loolu tam da nga naan kon nag ana ana mbaax gi ñuy wax soo doon nit duñ la ko defal dañu lay seetaan kon mbokk yi islaam dañuy wan ni ñiy baax ñu nga fa ñu nekk di baax ba léegi ñàkkul ni sa xel question mi ngi ci lan moo tax tubaab bi gëmul yàlla du jullit di dimbale ay animaux ndax loolu amul tuyaaba ñu ne la ah kay am na tuyaaba kay ñu ne la waaw kii nekkul jullit defal animaux yu tuyaaba bu baax bii kon nan lañ ko koy faye yowmal qiyaam ñu ne la déedéet kooku fayam du àgg yowmal qiyaam fii la ko ko yàllay faye ci ci àdduna ci dundam la ko ko yàllay faye delloo ko ko yeneen action yu gën a baax e mu doon def waaye fayu bis ci moom pour ñi gëm la rek arrahim almuminuun la yàlla di fay mbokk yi برم بنينا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لمجتك فأصدق وأكم من الصالحين برم بنا ولن يؤخر الله نصا إذا جاء أجلها يا لنا سرخ للواي depenser dimbaleen wa anfiqu ñu ne ko ci lan yàlla mu ne mimma razaqnakum la ñu leen xéewalal la ngay liggéey génn ci nga def ci lu baax dimbale ci ay nit secoureel ay nit jàppaleel ay jullit borom jaaxle dimbale ko surtout boo amee alal su la yàlla mayee alal fexeel ba bul nekk jaamu alal bi fexeel ba nekk jaamu alal bi wallaay fii ma toll maa ngi ñaan ci sama xol di wax ni mbokk jullit bii di jote ak waa Ndingler te alalu àdduna rekk tax te mu wóor ma ni am na lu ëpp li muy jote ñoom na def action ragal yàlla ci ñoom donte fayoon na état ay milliards na ko baale jéggal leen ko wallahi loolu mën naa nekk action bu koy tàbbal àjjana xam ngeen ni affaire ndengaleer bi dafa jógaat dëpp démb ñu ngi fay xëccoowaat ba am na sax ku fa gaañu gaañu yu metti mën naa jëm ci dee toolu jàmbur dëkku jàmbur suufu jàmbur soo ko jëndee te jaayuñu la ko man dama jàpp ni gouvernement rek moo ko sañ kon gouvernement bu juumee na dellu ginnaaw su bañee moom mi moom loola na ko def xamalu tax dafa am kenn ku def ak action bu ma yéem wallahi xaw ma ko musuma koo gis musumaa gis musuñoo toog waaye nag ku def lu baax am na droit ñaanal la te wallahi ñaanal naa ko te maa ngi koy ñaanal muy Ablaye Dia bu Sénico fii rekk soriwuñu dëkk yoo xamante ne ay kilomètres la fa amoon ay kër dëkk fa ñu dem tribunal tribunal ne ko yaa gañe mu jël ko ne may naa leen ko ngir yàlla loolu action gënu koo rëy mu fàttali ma li Aliou Sow daan def alayhi rahmatullah te ma gëm ni Babacar ngoom mën na fukk yu Ablaye Jaman kon yàlla ko yàlla jox xol boobu ba mu mën a def lu mel noonu jullit boo amee da ngay fexe nga dimbale ñeneen ñi amul ndax bis boo dimbalee ñi ñàkk jaaxle bis dina ñëw nga jaaxle tiit yàlla dimbale la te bis a ngi ñëw loo bërile bërile bërile da nga tiit leer na ma ne yowmal qiyaam buñ fa demee Babacar Ngom am na fa dossier yoo xam ne dana ci tiit kon na bàyyi lu mel nii ngir yàlla ngir mu nekk lu ko yàlla di dimbale yàlla na ko yàlla defal ba may ko dégg topp ba mu jëfee loolu su fekkee mi ngi dégg suñu kàddu borom bi nee na liñ leen jox na ngeen ci joxe balaa dee ñëw min qabli an yatiya ahadakumul mawt nee na joxeel balaa dee ñëw su dee ñëwee xam nga lay wax rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib yàlla soo ma mayoon beneen diire yokkal ma ñetti fan wala nga yokkal ma benn une heure de temps wala nga yokkal ma benn at yàlla fa asaddaqa li may njëkk a def mooy damay dëggal te saraxe fa asaddaqa yàlla damay saraxe kon kon gis nga li ma am <laughs> wallaahi danaa ko génne joxe ko xanaa xamoo li nga am ñett nga ci am sa alal yépp mënta romb ñett lo lek mu res ya ko mom lo sol mu rap ya ko mom lo saraxé ya ko mom amul ñentel ñentel bi ñi lay doon ñoo ko mom compte banque yi ya nga denc yoy mu mu ci da sa poche li ci nek ci xaaliss 100000 200000 nga génné 30000 wala nga génné 10000 saraxé ko 10000 bobu moy sa xaaliss mais yenen 90000 yi dess momoko mën nga génn léegi oto ni la tuy kon li des ku ko moom ñi lay doon kon xaalis bi nga joxe moom nga moom ndax yaa ko épargné ci sa propre tur te loolu du réer borom bi ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu ind allah lu ngeen def ci lu baax da ngeen fekk yàlla defal leen ko action yooyu jigéen ñi mën nañ ko mën nañ ko dem ci daara yi ci bërëbu jaamukaay yàlla yi fexe def ay association def ay mbooloo di dajale di natt di dimbale xale yi ci seen yére tilim ñu leen di fóotal action gënu koo rëy wallahi action gënu koo rëy léeg-léeg rek weer bu nekk nga jàpp benn bis wala benn kii rek ñëw ci daara ji gis seen daara bi ne ko indi naa sama saabu ak sama eau de ak sama lii dama bëggoon ngeen may ma ma fóotal xale yi ci li ma mën ma fóot ci jaamoo ko yàlla action bu gën a rëy boobu amul ñu génne ay quelques yére jox la nga fóot xoolal ki ngay fóotal yére muy jàng alquran mi ngi mel ni yow yaay jàng alquran moo tax borom bi ne na dépensé leen balaa bi sa ñëw ngeen ni yàlla may ma ma dëggal te saraxe léeg nga bàyyi alal joo xam ne ñu koy donn duñ ci def lu baax ah, parce que yaroo leen ci lu baax lu ñuy yàkkamti xaalis ba jeex loolu la ñuy yàkkamti am na ay doom yoo am yoo xam ni yàkkamti wu dul xam koofur foor bi fu mu nekk bis bu ñee paa bi dee na moom du la dee na waaye gaañ paa bi góona lay wax de non paa bi góona non mais paa bi dafa doon denc rek quoi te boo demee amul benn soxla bu tax ñuy wax de waaye soxlay caaxaan rek la muy yàkkamti bu ñu naan ñeenti weer fukki fan meer yi téeñ ji day yàkkamti weer yi tegloo bu ñee miraas li muy njëkk def toog commencé calculer xaar wallahi billahi def naa miraas yaraax yaraax keroog dama yéemu ci yàlla waa joo xam ne génn na àdduna li mu bàyyi ci ay kër defe naa ni mat na onze kër bàyyi na ko waaye bàyyi na njaboot am na ñetti jabar aawo bi rekk am na fukki doom ak benn aawo bi rekk ñetteel bi am na ñeenti doom macha allah kon ñaareel bi it doom yi bi ñu leen limee yépp dem nañ ci ay 24 dom ma sha allah 24 dom man mi tok man mako mirage waye li ma gëna yim amna ñaari dom yo xamni kéro keroog dama mer ba deko na fofu billahi ñuy wax ni ñi ñopi man ma mu jóg ne ne fépp sëy bu ñu fonto waay lii lan la yu xulen dal seen kaw ba ñu ne tek tok pas imam bi dafa mujj jóg ñaanal ma ne ma oustaz yàlla na la yàlla fay dañ laa miraas loo waaye dimbale nga ñu ma ne non buñ ñu fonto yéen seen wayjur génn na àdduna alal baa ngi nii yéen ko moom lan ngeen di njëkkante bay xëcc lan la lu fi jar xëccoo kii di ñii wooy seen nijaay ay nijaay toog ñee toog ñee toog ñetti famille ku nekk nijaay ñëw quoi ba mais mu mel ni affaire bi la benn tribunal la benn tribunal boo xamante ni. ñu ngi leen mujjoo léegi kër yi bëri kii na kër yëpp jaay nañ ko wala jaayuñ ko ñu ne am na yu ñu jaay am na yu ñu jaay coow yooyu na waat kur jigéen ñeeg góor yi kur kur ma mujj reporté waat mekki miraas bi woo paa yi ci biir waxtaan ak ñoom ñu jàppaat beneen dat dat boobu bi mu jotee ñu miraasaat kenn ku ne jël wàllam mais fi ma toog maa ngi naan billaahi xaw ma kan xaw ma kay mais ñaar ñiy toog moom du ñu ñaanal paa bi moom loolu moom leer na ma duñ ko ñaanal yow ñii ñu ngi ñii doom ñu ngi toog di jooy am na ci koo xam ne moom jooy rek lay dem ak benn jigéen li ñuy wax ñu nan ko waxal mu ne man koy xaw ma aw ma lu may wax man sama papa moo ma gënal lii ngeen ma tegal fii ma ne ko billaahi wuti nga ak ñaar ñii ñii ñu yiis lañ bi ñu miraasee ba génn xamal waajo mais oustaz jaajëf waay billaahi loolu la ma wax <laughs> oustaz jaajëf xool dama moom maa ngi dem ba jàpp non benn partem de quartier bi naa ma gis ne kii doomu yom kii ci man ko noo kii yéesam moom mi ci jëwam la nekk nëbb ko yàlla nañu yàlla musal ci loolu xoolam lu mel noonu quoi xaalis boo xam leer na ma ne xaw ma xayb waaye boo fa delluwaatoon la mu amoon moom jaxase na ko mélange ko mu jeex kon xaalis bi nga am yow jullit génne ci nga dépensé ko ci yoonu yàlla sinon di nga fi bàyyi ñoo xam ni dañ koy lekk de wallaay jigéen ñi danga nga fi bàyyi ñoo xam ni buñ ko miraasee ba pare yeneen góor ñëw braqué leen takkaat leen toog fële duñ la ñaanal sax duñ la ñaanal kon borom bi daf ñuy wanne nañu am la gis nga jabar yi nga fi bàyyi ñeneen ñoo leen di jëlaat ñeneen ñoo leen di jëlaat jabar bi la fi bàyyi yow góor gi beneen jabar ngay jëlaat kon li nga am am ci la jaamu ci yàlla balaa dee ñëw nga naan yàlla may ma ma dellu ginnaaw defaruwaat am na ñoo xam ne tey bi ñu dee li ñuy ñaan yàlla bu leen ko yàlla mayoon bu ñëwaatee li ñu am lépp la jël sànni ko ndax xam nañ ñi ndekk joxe ci yoonu yàlla lu ama am solo la bokk na ci mbokk yi wa akun min as-salihin ma fexe ba bokk ci ñi baax bokk ci ñi baax ak am am alal bokkul min as-salihin mooy comme ni ngeen def ñaata jeune ci jaxaay bii daaru ci bugg yi ñoo tëdd di nelaw ñaata jeune ñoo nekk ci biti di taxawaalu ñaata jeune ñoo nekk ci leneen ci jamonoy koor bii ñaata jeune yéen ngeen bàyyi fa loolu ñëw toog ci jaamu yàlla mooy wa akun min as-salihin ma bokk ci ñay baax yàlla nañu yàlla baaxal wallahi yàlla nañu yàlla baaxal bépp sabab buy tax nit baax yàlla nañ ko yàlla yombal xanaa xamoo saraxe day laabal xol laabal jëmm borom bi nee na yonente bi xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha génneel ci seen alal yi dara ngir mu laabal leen ñoom seen bopp ndax ñaata yoon ngay bàkkaar bàkkaar yoo xamul soo saraxee amaan na nga bàkkaar lu la yàlla mere lool mer boobu xam nga lu koy dindi boo saraxee rek yàlla dindi ko ndax tut sadaqa tutfiu ghadaba rabb sarax day dindi meru yàlla te bis bu nekk nag mu dal bis bu nañu juum bis bu ne nga wax lu ëpp mba nga def lu ëpp mba nga ànd ak ñu wax lu ëpp mba ñu def lu ëpp kon booy génn di sarax sarax boobu day taxaw taxawaayu yàlla baal la lële kon boo defee action bu baax yàlla dana la dimbale jigéen ñi ñu góorgóorlu bagage yi ñu am ci kër yi nañu moytu di ko denc di ko seeni wujju wala seeni waa kër man suma gisee jigéen buy épargne ay bagage ñaari jàngat nga ci yam di nga xam ne ku bëgg alalam la waaye am na fu muy àgg da ngay xam ne kii bëggul alal ndof moo ko ndof moo ko jàpp boo borom bi ne wa yamnauna al maun am na ñoo xamante ni bagage dañu koy soxoree ñi ñu nekkal yaa ngi ci kër gi sëy sa wujj ñëw na am lu mu soxla yow yaa ko am amaan na sax la muy soxla sa borom kër ko jëndoon bu dee sa borom kër ko jëndoon yow mi nekk aaw moomoo ko loolu il faut nga bàyyi xel waaye nga nag ba sa wujj di sëy si nga dajale bagage yi sa borom kër jëndoon yu bëri denc ko sa biir néeg di ko génn ci turu maa ko moom di ko denc heure bu la neexee sa wujj sax bu soxlaa pour lal lal nu koy tuddee sax si ñuy lal pour seen lekk jakaay jëkkër nga téye sa bos su soxlaa plate kaas nga téye loolu loolu nit dafa war a ragal yàlla moo borom bi ne wa yamnauna al maun même bu doon alal boo moomal sa bopp jëndal ko sa bopp wujje nekkul soxorante ndax ki ngay wujjeel xamoo moo lay mujjee xamoo yaa koy mujjee seeni doom xamoo ku leen di mujj yar ku leen di mujj yar xamoo ko doo ko xam moo tax lu mel noonu képp kuy sëy góorgóorlu man yàlla dafa ma jàngal ay yenn leçon yu bari sama doom yi toog ñu ci mag seeni yaay dunduñu waaye jànge naa ci lu bari tey ki leen yaraat wala ñi leen yaraat amaan na ba ñuy judd ñoom fekkewuñ ko ñi leen yor ni fi mu ne ñi leen yar bi ñii di judd ñooñu fekke wuñ ko tey ñëw nañu nekkaat seeni yaay kon ñooñu bu ñu ñëwaatee nañu fexe teg mbir mi ci yoon ndax ñoom it ñooñu jur xamuñu ku leen di yor xamuñu ku leen di yor kon doom moom li olof wax der bu ñu weer la kenn xamul ku cay toog kon jullit bu jigéen loolu lay suur suural ni koo def ci moom lu baax na ci sa wujj jiitu ndax yéen a bokk benn wërsëg ñaar bu ñu bokkee benn teen bu ñuy rootee dëgg dëgg dëgg seen buum jaxasoo warta indi problème nañu naxante lemmi ko ndax xamuñu ëllëg xamuñu ëllëg luy am kenn ci nit ñi xamul luy am wallahi kon jigéen ji tamit na fexe li muy denc di ko nattee waay waay soxna si génn ci sarax yonent bi tabaski sallallahu alayhi wa sallam dañoo julli tabaski ba pare jamono boobu rajo amul nga mën a wax fépp dégg la masjid baa ngi saxaaba yi toog comme ni ngeen toogee jigéen ñi toog ca beneen côté ba bu yonante bi wax jigéen ñi xëy na dégguñ ko wala boog muy message bu ko yàlla yónni mu war koo doxalee noonu bi mu xutbaa ba pare ànd ak bilaal ñëw ci jigen ñi ne len ya yaa an nisa tasaddaqna wa aksirna al istighfar fa inni raaytukunna aksara ahli an-nar allah akbar jigen ñi hadith bobu dañ leen ko war di waxal toujours ñu ci tit yonent bi ne ay yéen jigen ñi ñu tok diko xol mu ne len saraxe leen tasaddaqna saraxe leen bu baax dee leen sarax bu ko waxee rek yéegeen jigéen di commencé ñii génn seen lam ñii di génne bilaal jël kaala bi ko yonent bi joxoon takk ko ci ndigg bi téye ko nii ku nekk li mu am mu koy def ci kii bi bilaal téye nii bi yonent bi paree dem distribuer ko miskin yi allahu akbar jigéen li tax ñu leen di saraxeloo ñoo dàq saraxe góor nag waaye bu ñu jàppee ne ñoo dàq saraxe góor nañu jàpp ne la ñuy joxe jottali la lantinoor la la ñuy joxe góor ñee leen ko jox kon ñom buñu ko joxee bax nañu lool bul japp ni goor gi da nay joxewul la mu la jox nga joxe te kon da ngeen ko seddo ci digg bi kon tasaddaq na jigéen ñi dee leen sarax fu ngeen tollu mu melni ni ñu yonent bi lan mo tax nga digal ñu ne ñu saraxe leen ba pare de len tuup fu ngeen toll yalla mu ne fa inni raaytukunna aksara ahli an-nar yonent bi ne yéen jigéen ñi dama gis ni safara yéen a fa ëpp allahu akbar lu doy waar yonent bi mu waxee lu saxaabiyaat yi ñu ngi muuru nii di jooy yonent bi ne leen saraxe leen jéggalu leen yàlla ndax yéen a ëpp safara fa inni raaytu kunna aksara ahli naar bi mu waxee rek benn jigéen jóg fa qaamat imraatun minhunna jazila jóg taxaw ne maalana akthara ahli nnaar ya rasulullah loolu mooy question bi ndaw si jóg ni yonent bi waaw lan moo tax ñun jigéen ñu safara ñu ne ko ah yow yaa laajal jigéen ñëpp kon yéen ñii toog jigéen jooja laajal na leen yeneen jigéen ñi ñëw jigéen jooja laajal na leen nee nañ kooku hind la maalana akthara ahli nnaar lan moo tax ñu safara yonent bi ne maa raaytu min naaqisaati aqlin wa diin nee na gis naa ni yéen a gën a ñàkk xel yéen a gën a ñàkk diine mu mel ni ndaw si def ko ne lan moo tax ñu gën a ñàkk xel gën a ñàkk diine yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ñàkk xel bi mooy jamono bu nekk ngeen weddi njëkk yi leen seen borom kër jëkkër defal te loolu ku ko vérifier gis ko jigéen saa bu meree rek fàtte la nga ko defaloon du xas nag bind la ci moom saa bu meree rek fàtte la ko defaloon wallahi saa bu meree fàtte ko jigéen mën naa feebar léegi ñu yóbbu hôpital entré ko jëkkëram def ci moom trois cent mille quatre cent mille ñu opéré ko ba mu wér mu toog at ñaari at si boppam metti jëkkëram jógul walla yóbbu ko mu ne musoo maa faj ah da nga faté opéré barak nak lolu bind la ci ñom nekul xass lolu motax ñu ne nañuy saraxé ndax jamono bu nekk nga wax lo xam bo paré da nga rus yow jigen ji jamono bu ne nga tontu su jëkkër kàddu go xamni da ngay tok tuuti sa xel ñew da ngay mujj rus ni suma yegon duma du ben wax benn jigéen nee ma oustaz maa ci aduna bi maree ma ko da nga xam ñeneen mu ne billahi ma gëna bax ci jigen ji mais ben défaut la am ma ne ko ban defe mu ne mënuma téye sama gémmiñ sama kanamu jëkkër ma ne ko mbaax da nga amoon yëpp léegi taxaw nga ci ñi gën a bon mu ne billaahi loolu rek mooy sama problème oustaz maa gën ci jigéen ñi mais mënuma téye sama làmmiñ xaw ma lan la mais wax sama jëkkër ni mu dimbali ma ne ko nu ma koy wax mu dimbali parce que bu waxee ma wax ma ne ko dimbali mooy bu waxee nga noppi mu ne loolu laa mënul ma ne ko moom it loolu la mënul <laughs> gis nga ko ah ndeysaan ndaw si France la nekk dafa ñëwoon fii seet mais ndaw su bëri ful la soo xam ni te wallaay buy wax yi muy def dama ko non yow loolu yàlla na la ko yàlla def yow kay ku baax nga mais defo bi nga am mooy tontu moom daal défaut mooy tontu ak ñett ñett moom moom kenn mënu ko ko tee su jëkkër ne benn mënu ko fukk. nee na boobu défaut rek laa am nee na wallaahi oustaz boobu bu newul woon ci man gëm naa ni maa gën ci nit ñi ma ne ko waaw défaut boobu nag lu naturel la ci yéen da ngay fexe nga jéem di ko wàññi ngay moytu kon yonent bi nee na jigéen ñi dañu gàtt xel ndax dañuy weddi njekk dañuy weddi njekk ak ku leen ko mënti defal dañu koy weddi ñu ne waaw ak ban mu ne ak ñàkk diine yonent bi la moo tax ñu ñàkk diine mu ne weer wu nekk mun lañ koo julli ba mu jeex il faut moom ci lu même weeru koor gi mënoo ko woor ba jeex il faut moom jour yoo wooru kon loolu wàññeeku diine la mbokk yi bokk na ci génne sa alal ci yoonu yàlla li mu lay dimbalee mooy lëndëmu bàmmeel yu bàmmeel laaju malaaka fitna ya fa am di saraxe dala ciy dimbale booy génne sarax toujours loolu dala ciy dimbale ndax boo deewee ba malaakay ñëw di la poser question sarax day ñëw taxaw sawet wet nekk jëmm ju rafet bu ko malaaka yi lan la mun a ah, kii daf ma daan génne di ma joxe du ma seetaan gën a indi ko problème mbokk yi kon saraxe baax na de génne génne baax na de joxe joxe baax na kon na ko góor di def jigéen di ko def beneen bi la ngay joxe na yàlla rek tax wa yutimuna altaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira booy saraxe nag na nga joxe loo bëgg nag waaye bul nag nag ngeen ndogu ndogu ndogu ba yax yi des ak boppi jën yeeg xojor gonneeg daggitu bisaab yi nga jaxase ko tuuti xoon ña taale am yàlla jox la yow li nga jox yàllaa bon kon yëkkatil ci baax jox taalibe bi et puis taalibe taalibe kenn waru ko sarax lu bon kuy jàng alquran koo xamante ni ëllëg dina bokk ci pilier yi tee ne tee diine ji mais kooku di ko jox dafa baax moo tax dëkk boo dem ku fa nekk yaay taalibe bokk na ci ñiy gën a réussir man xam naa Diourbel suñu maire bu nekkoon yaay taalibe ba léegi njabootam noonu la ñu tekk maire bi fu ne lay dugg ji dajale di indi ci daara ji di ñu jox boo demee Ndar amoon nañ fa maire bu mel noonu day sànn yaay taalibe fu mu toll fu gisee bool yu ndaw day jënd fukki bool juróom léeg mu gis benn taalibe jox la ñaar waaw ne la bu di jotee indil sa benn bool nga indi mu tibbal la añ nga bàyyi fa beneen bu reer jotee nga indi yu mel noonu kon jigéen ñi nañ ciy def waaye góor ñi nañ koy def beneen bi looy saraxe bul bàyyi mukk la nga waroon a xëddee mu dem ba forox nga jox ko taalibe yi wala xale yi yow kat li nga leen defal bu ñu la ko defalee doo ko lekk kon li ngay joxe joxel ci li baax jigéen ji booy génn si yére di saraxe tànnal yére yi gën a baax boo ubbee valise bi am na fa yére yoo xam ni bu ñu ne woon réception ngi nii wala ciit wala xew moom ngay njëkk a sol jël sa portable di xaw ma sinap lañ ko wooye xaw ma yooyu ngay jël boo ci jëlee benn saraxe di nga xam ni sarax lu baax la waaye nëgg nag ba yére boo xam ne ñeme woo ko xaaree sa allaaji sax di ko joxe loolu nag wax dëgg yàlla ka nga koy jox yéene woo ko jàmm xanaa bëggoo moom mu sol ko allaajam kontaan kon booy joxe joxe lu baax mbokk yi xanaa xamoo génne sa alal joxe fi sabilillah dara gënu koo rëy kon loolu moo tax yàlla woo ñu ci yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm génne leen joxe balaa bisa ñëw bis boo xamante ni amul jaay amul njënd amul xaritoo ñiy weddi nag ñoom ñooy waytooñ wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi